Euh, suñu soutien. waaw loolu moo war parce que nag booy liggéey nit ki ba ñu woolu ko ci yoon li war mooy nga taxawu ko ñaanal ko jàmm mu génn ci surtout yoonu jomaay wii moom kuñ ci woo rek euh, dañ lay ñaanal di la taxawu ndax nag des fois li ñuy àtte woo kenn du xam lu mu doon des fois li ñuy wootee tam kenn du xam lu mu doon ndax nag Kader boo ko woowee ci lii mu wax ne dañ ko ko wax muy audio boo xam ne. Euh, ñu ci baree bari yor nañ ko diglu ko la waaja wax leer naañ ñi wax fañ déparé wax ba nuy départ kër gañ leen fekk dàq ji leen ñu tasaaroo deuxième départ bi wax la ko ca dal la ko ca fekk yépp ak nañ leen repatrié waat delloo si waat leen ci réew mi ak troisième départ bi na mu àggee moom dafa nettali parcours bi yépp yaa xayti mu laa nag loolu bu fekkee Kader wax na ko ñu woolu ko ci euh, audio yooyu moom boo ci jotee diglu ko rek war nga ne mën a ah mën ngaa dem parce que nag ka wax moom ma nga ma nga ca bitim réew mënoo koo jëli comprendre nga léegi nag téye ko fa suba ba ngoon waa loolu nag xaw na maa jaaxal waaye comme wàllum yoon la mhm. ñi ngi déglu mhm. déglu nag méttiwul waaye nag li Kader wax nit wax na moom lu ko gën a yées te mu ngi ci réew mi di di anda daata talax di doxantu Ibrahima Sall ndax nag bu ñu ko fàtte Ibrahima Sall toog na fii sans limite ne xam na ay gendre yoo xam dañ leen rey dugal leen ci bari ko taal leen mhm. kenn woowu ko nag ba tey loolu moom lu ma jaaxal la te damay wax Sénégal yëpp di ma dégg Ibrahima sàll moo ko wax ci sans limite ñëpp di ko dégg Ibrahima Sall kañ la bàyyi wax mooy jour bi mu ne Macky Sall bi fa ñoom jomaay demee di ko seeti ak Sonko Macky Sall dane Sonko xanaa néeg bi ngay dugal aji saar ci la ko waa Pastef ne hop dootoo wax waaye nag gannaaw ba muy sosal général Moussa Fall di yëpp kenn waxul mais ba mu ne Sonko fi ngay dugal aji moom la waa Pastef ne kii waratul wax parce que waxi dof lay wax aha parce que Sonko lu tudd mais ba mu tuddee général Fall tudd ay gendarme yu ñu baxal tudd ay nit yu ñu rey sànni leen ci géeju yoof kenn waxul kon Sénégal a ngi nii te Ibrahima Sall la ngi dox ay soxlaam nu mu ko neexee fu ko neex yendu fu ko neex fanaan alors que li Kader wax moo gën a du ma sax gara xaaj xaaju xaajaatu xaajaatu waa ji wax Kader waxu ko parce que lu toll ay gendarme yu nekk ci seen liggéey di ko liggéey yow nga ne dañ leen a faat moom expliqué na ba expliqué niñ faata ñoom Didier Badji ak Fulbert Samb wax nañ leen wootee gaañu gaañu yam seen yaram ak yépp Ibrahima Sall expliqué ko ñu bàyyi ko muy doxantu alors que Kader wax lu mel nii nga ne ko Kader kaay wuy si mais nag ku yàbbu na ñëpp pare dem wuy ji amul problème comme ñoom seen bu wootee faraloo Sonko lañ ko teg garaawul na ñëpp dem wuy ji mais Ibrahima Sall buñ ko njëkkoon a woo rëq ndiggam ëllëgee keneen du ñemee wax lu mel noonu te su ma ko waxoon wala keneen wax ko ci ñun ñii da ngay wuy ji te boo wuy jee doo ñibbi parce que wax jooj dafa garaaw léegi nag kon réew mi mu ngi nii nañ ko bàyyi nii moo tax ma ne jot na ku nekk ki nga dendal nga téye ko ne ko foo far parce que affaire yi dafa commencé ëpp loxo te affaire kenn xamutul lu muy nurool te damaa jàkkaar na nag euh, jamaay ak Sonko ndeysaan fàtte nañ am na ñu jugoon di leen sotle ji de bugguñu leen adhéré wuñ seen parti gëmuñu leen xam nga lan lañ gëmoon dañoo foogoon ne Macky Sall da leen di jaay doole ñu jugoon ñoom ñëpp ne Macky Sall jaay doole bi ngeen ko bàyyi dem sotle leen ñoom buñ ñëwee. war maanaam lu mel noonu sax waruñu koo jege képp ku ñuy jàpp wala ñu lay woo war na tegu ci lu leer naññ te maanaam du duma yi ci seen ñooñ lañ ko war a njëkkee seen ñooñ ku ci jàdd yoon ci yow yow loolu joxee joxe leçon. Mhm. boo nekk exemple ne kii jàdd na yoon. ana Cheikh Baara Ndiaye mi tuumaa leen du mu ngi nii di wëreelu di tuumalaat ku ko neex ku neex mu xas la defe nga ne réew mu am yoon loolu mën na faa am. Mhm. moo tax ma ne li may ñaan daal. Mhm. Euh, opposition bii di ñëw su leen yàlla joxe majorité nañ def ay réforme jomaay génne loxoom ci justice bi parce que loolu moo ñuy jig sinon dina fi indi loo xam ne day tilimal deru justice parce que lii nag muy commencé tilimal seen der man procureur Ndoye bii ñu nomee man moom xamatuma ci moom dara doyatuma doyatuma na leer lu mu fi ku mu fi man di toppit ku mu fi man di waxi doyuma lu mu fi waxi doyuma parce que nag ñi ko falama doyul te nii ma gis nag doxalin bi nii parce que jox naa ko fay yu baree bari yu mën a topp topp leen kaaw kader bii mu ci jël nag tey na xel bu mu yaakaar bu ñu yaakaar nag kenn ragal na kenn lijjantiwu leen wooteeg yóbbëg te kenn kenn da leen a wul sax kenn yëgul ne sax man sentiruma ne sax ñoom ñu ngi ci réew mi man sentiruma ne sax réew mi procureur ngi fi di exister sentiruma ko. très bien kon seen nappaate gi seen xoqotalaate gi laa bëgg ñu teg ko ci suuf amul kenn ku leen ragal nag yàlla leen ëpp doole foofu parce que ku xamul ndax sa noyyi bi dina egg ku la ragal dafa yab yàlla kon kader eh, Kader mi yii nii ku ko ci téye da nga ko fekk nga bëgg ko téye da nga xiifoon rek bëgg ko téye 72 heures nga ko li ci des jàpp ko yóbbu kaso moo des waaye fépp yàlla nga fa. Euh, très bien euh, fépp yàlla nga fa et puis également euh, Modou Fall. Hmm. ci li nga xamante ne peut-être moom mooy déglu bi ñu koy déglu depuis ce matin ndax je pense bien bi ñuy quitté foofu son avocat yegg seegul woon. wax nga ko sànq xam naa maa fa maa fa mujjee te bi ma fay jógee avocat am yegg seegul. Euh, ragal naa ni nag mun naa am ci ginnaaw bi avocat bi yegsi na mais euh, euh, ci tàmbali seede rek wax nga ko muy Kader nit ku baax la nit la it koo xam ne ku respecté ay droit la rawatina doomu aadama mais nit ku ci nekk nag war nga ko nangul gëm-gëmam ci côté bu mu mën di doon ki nga xamante ni si ànd na ak Ousmane Sonko nangul ko li mu gëm ki ànd ak président Bougane nangul ko li mu gëm ki ànd ak président Diomaye nangul ko li mu gëm ki ànd ak Barthélémy Dias nangul ko li mu gëm ki ànd ak président Macky Sall nangul ko li mu gëm et cetera loolu mooy démocratie bu loolu amee rek euh, nit ñi dañuy daal di mën a nekk ci dal nekk ci jàmmante mën di maslaa mën di waxtaan te su boobaa pénc mi yaakaar naa dinaa am wutee coow li li ko li ko indi lépp mooy lànk pénc mi bañ a am wuute te pénc mi pour mu am wuute mënul ñàkk il faut kii bëgg a lekk mbaxal ci guddi gi kii bëgg a lekk cere kii fonde lay lekk kii ginaar la bëgg a lekk loolu mooy démocratie te loolu mooy Sénégal Kader waxul lu jar woo wala bu waxee lu jar woo it waxut lu jar téye suba ba jant bi soo sa ça la réalité Abdou Nguer na ko léegi dafa am ñu mu fàtte nit toog na wal fajiri nii biir pale ñaari alkaati yi faatu dañ leen faa rey suul leen fa wal fajiri la ko waxee ñu bàyyi mu sedd kenn woowu ko nit toog na muy Azura Fall président de la république nga xamante ne sii moom a yilif yilif ko yilif suñuy waajur yilif bépp sénégalais bu nekk ci biir réew mi ak bu nekk biti réew mu tudd ko teg ci moom ay baat yu ñàkki teggin ñu bàyyi ko muy taxawaalu nit taxaw na boole procureur juge yi ñépp teg ci ñoom baat yu ñàkki teggin ñu ne daa dof bàyyi ko muy taxawaalu yaa xayti mu laana yooyu yëpp nag bu dajee kadeer net li luñ ko yónnee ci plateau ñu woolu ko nit ñi daañu ne kan mooy woote kan moo nekk ci ginnaaw woote bi kan mooy joxe ndigal ñuy woote lan moo tax woote bi di demee nii ku farak ñoom loo wax baax na loo def mu jig la ku jàpp ku ñu jàpp ni faroo ak ñoom donte da ngay dund démocratie wane woon ni fenn nga far da ngay wax rek dëgg te yàlla tax wala li nga jàpp ni mooy dëgg ñu woo la su boobaa xelum nit ñi dana teey jëm ci ñi nga xamante ni si ñoom ñoo nekk ci suñu kanam te lu tax xel di teey mooy Ousmane Sonko dafa waxoon baat boo xam ni xaw ma daf ko rëcc wala daf ko tey wax ko dani ministre de la justice yónnee na ma benn vidéo ni ma kii kat Pastef la bokk ma ne ko defal sa liggéey muy ki saaga woon procureur yi ak juge yi waaw loolu nag bu la rëccee ba jàll ci pénc mi ñu demaat tuuti gis ne ku far ak yow lu mu wax mu jig ko ku farut ak yow lu mu wax lu mu tuut tuut tuut mu jigadi ko ndax yaakaar naa li nga xamante ne si moo tee euh, kii di euh, capitaine euh, Cheikhna Keita commissaire Cheikhna Keita te Ahmed Suzanne Kam